أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ba tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñu ngi ci istuwaaru Yuusuf alayhi salaam tolloo nañ ak yéen ci fi mu leen di joxe mbubbam pour ñu yóbbu ko sànni ko ci kanamu baayam ndax ay bëtam mën a gisaat mu nekk mujiza baahira kéemtaan bu doy waar kéemtaan bu yéeme sunu borom subhanahu wa taala moom rek moom moo mën loolu keneen mënu ko kudul moom sunu borom subhanahu wa taala mu ngi nettali ci saar bi ci suratu yusuf aya 93 mu ne moom ci boppam moom yuusuf mooy ki leen ne izhabu bi qamisi haza yóbbu leen sama yére bi sama semis bi yóbbu leen ko fa ngeen ko jëme mu ne leen fa alquuhu na ngeen ko sànni wala ngeen teg ko ala wajhi abi ci sama kanamu baay xam ngeen li ko waral mooy bi xale bi réeree baay ji naqar bi mu ci jële mooy bët yu weex tàll gisatul moom yusuf nag borom bi subhanahu wa taala dénk na ko ci xam-xam loo xam ne ndax yonent la yàllaa ko yónni suñu jëlee yére bi yóbbul ko baay ji yàlla dina delloo si waat bët ji mu ne yati basiran waatuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen ko defee ay bëtam dina delsiwaat su boobaa nag yéen famille bi yëpp na ngeen dajaloo ngeen quitté Palestine ngeen ñëw Égypte boroom xam-xam yi ne nañ zukira anna yusuf lamma arrafa nafsahu ixwatahu ñu ne boroom xam-xam yi nee nañ keroog ba yusuf feeñoo ay mbokkam mu xamal leen ne man maa yusuf saalahum an abihim après mu laaj leen nag ana sama pap ana sunu baay qaalu zahaba basarahu ñu ne ko ay bëtam dem na gumba na ndeysaan mu ne leen lu ko waral ñu ne ko minal huzni ndax naqar rek bi mu la gësatul daal mbir mi def ko méttee méttee méttee métti ba mu gumba yemul ci lool sax waaye dafa xuuge yemul ci lool sax léegi nekkatul ak njaboot ci digg àll ba la tabax benn néeg tudde ko baytul xusn daal di dëkk ca néeg bi ndeysaan keroog borom xam-xam yi nee nañ Yuusuf jooy na jooyu métti ndax lan ndax baayam li ko dal ndax moom sabab bi fa inda izin ci jamono jooju aataahum qamisahu mu jox leen nag léegi semis bi loolu ku dem ci tobar yi di nga ko fa fekk mu ne summa amarahum bi an yazhabu bi qamisihi mu digal leen nag ba mu leen joxee semis mu ne leen dem leen su ngeen demee fexe leen yére bi na laal sama yaramu papa na ko teg ci bëtam yi na ko teg fépp fu koy metti su ko ci tegee fa innahu yarji'u basarahu bët yi dina dellusiwaat ci saase waaw loolu tuufaay de ah kooku weesu na loolu lu tax ndax mbirum borom bi subhanahu wa taala la baadama kaana qad zahaba ginnaaw bu bët yi demee yére bi bu ngeen ko tegee ci kanam bi su fóonee yére bi ba sama xet dugg ko insha allah bët yi day delsiwaat bi iznillah ci kàttanu yàlla nee na lii nag du njombalant du njombalant maanaam nekkul luy war a jommal nit ñi ndax kéemtaanu yàlla subhanahu wa taala wees na foo ko takk yàlla mën na lu ëpp loolu après nee na leen nag su loolu amee na ngeen fexe ngeen dajale famille bi ngeen dajale mbokk yi ngeen ñëw Égypte ngeen ñëw fekk si ma xool ngeen du hasard rek mbokk jullit yi borom bi subhanahu wa taala naan ñu faqsusil qasasa nettali leen nit ñi histoire yi kii ba mu juddoo ba fi mu toll ci ay jafe-jafe la nekkoon waaye jàngoon nañ ci histoire bi ci saar bi innahu man yattaqi wa yasbir képp ku muñ ragal yàlla jafe-jafe boo am yàlla génne la ci buñ jàng alxuraan rek ñu yaakaar ne aaya yi démb rek la mënoon dara gis nga histoire ibrahim bi borom bi nettale ibrahim ba pare dafa ne inna kazalika najzil muhsinin nii ma faye ibrahim képp ku rafetal ma faye la noonu tënk ko ci jamono tënk ko ci waxtu tënk ko ci bis tënk ko ci ay at ci lan la ko tënk ci nga def lu rafet gis ngeen yusuf fi mu jaar yëpp ba mu feeñu mbokkam yi tey mu ngi am doole mi ngi am kattan mi ngi yor pouvoir bi ci loxoom tey bu doon kenn ci ñun lu muy wax ñii ñëpp dóorale leen noonu ci kaso bi na metti te moom dafa metti yoon ci moom lu metti lañ ko def mais ndeysaan terewul gis nga sànni na loolu nee na leen seytaane moo ko defoon rek seytaane moo yàq suñ moo bëggoon yàq suñ diggante ñoom sax ñu bëgg mu ne leen déedéet bu leen ko fi xalaat bu leen ko fi waxee loolu nag du lu yomb waaye yàlla loolu la bëgg nu mel mooy idfa billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun hamim waaye wa ma yulaqaha gis nga baat bi ñëwaat na illa allazina sabaru suñu problème yëpp mooy muñ biñ laajee borom xam-xam yi lan mooy muñ dañuy ne al sabr al sabr muñ mooy lan xabsu nafs ala ma takrah mooy nga poñe bakkan bi def loo ko lu mu bëggut a def loolu mooy muñ loolu nag du yombul mbokk jullit yi inni la ajidu riixa yusuf kan moo wax ci yaqub xoolal distance bi mu nekkee distance bi mu nekk moo ngi Palestine dëkk buñ naan Kanaan kii mu ngi Égypte waa ji yor semis bi bi mu waree fasam traversé ay mètres yu gàtt rek góor gi fa mu nekk naan xetu Yuusuf mi ngi may xeeñ xetu Yuusuf mu ngi may xeeñ waaxasat al iir tasuqu tariqaha nee na caravane bi jël na yoonam min misra ila ardi kanaan départ nañ Égypte jëm kanaan xaysu yaqub fi nga xam ne fa la yaqub a nekk distance bi kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu soree mais terewul yaqub mi nga xam ne yàlla moo ko natt waxoon nañ keroog ci darsu dimanche passé ñi ëpp natt ci kaw suuf mooy yonent yi yonent yi ñoo ëpp natt ci kaw suuf lu tax ñoom ñooy ñoom ñooy première degré ci doomu aadama yi ñu gën ci nit ñi moo tax yàlla teg leen ci natt loo xam ne ñun buñ ko tegoon nit day sotti boppam essence taal ko wala mu jël bal dóor boppam parce que mënoo ko dégg ko fa kaana saabiran yàlla nattu na ko moom moom yaqub mu muñ balaa yi nga xam ne moom la ko yàlla teg raadiyan an rabbil ardi wassama mu nangu ndogalu borom asamaan ak suuf li mu ko teg mu nangu ko ci biir jafe-jafe yooyu mu nekk ci biir njàqare boobu mu nekk ci biir coono yooyu mu nekk ak naqar mu jékki-jékki rek mbetteel xelam commencé dal meram bi commencé giif mu mel ne safara bu doon tàkk la mu commencé di giim di fay jékki-jékki rek fi mu toog ak xale yi sët yi doom yi moom ñu nga doom yaa nga doom yaa ngi doom yaa ngi ñu ngi Égypte parce que ñoo jëli woon dund bi léegi ñan ñoo fa nekk ñan la nekkal sët yi sët yi la nekkal mu jékki-jékki ci mbetteel boobu muy waxanteeg sët yi sët yi di ko tooñ mu naan leen maa ngi xeeñcu xetu Yuusuf tey bu doon fii la maam di toog ak ay sët naan di leen wax loo xamante ne ñoom seen nopp ëpp na ko lu ñu koy wax kii dafay naax kii di paa bi de léegi day naax waa mais tey maam maam loo wax wala ñu koy kekkantoo di ko fooyee fekk moom mu ngi leen di wax loo xam ne yaqiin dëgg mais ñu koy fooyee ndax moom dafa am yëg-yëg bi moom Yaaqub mu yëg ci lu leer ne lii di ñëw ci moom xetu Yusuf la fasaha bi mel i qalbi mu yuuxu ci xolam bu fees ci ay cëram yu bañoon yépp tàllee ko mu ne inni la ajidu riha yusuf wallahi maa ngi giñ ci yàlla ne maa ngi xeeñcu xetu yusuf ñi ko jege woon yépp nag daal di waaru xam nga lu ko sëri tont ak doom yu ndaw ndawaan yi qaalu ñu ne ko tallaahi giñ nañ ci màggaayu yàlla innaka yow maam mii yow mii la fi dalalika alqadim yaa ngi gis sa ndof gu yàgg ga ba léegi yow sa ndof gi bàyyi yow la mais borom bi day wax ne hal yastawi allazina yaalamuun ñi xam ak ñi xamul mënuñu yem moom ak ñoom mënuñu yem parce que moom dafa xam yàlla moo koy wax yu dañ koy informé dafa am gis-gis parce que du nitu kese nit la ak nit la ak yonent yi nit lañ ak qul innama ana basarun mislukum waaye loolu mooy ak waaye yuha ilayya waaye nag maa ngi yéen a yem nit mais à part nit ki nag yuha ilayya man dañ may dee ki ñuy dee ak ki ñu dul dee nag du ñu yem waaw yaqub dafa am yaqiin ne doomam deewul lu tax dafa gis malakul mawt mu ne malakul mawt yaa rey sama doom malakul mawt ne yàlla na ma yàlla musal ku tudd yusuf moom yonent reyaguma ko ci kaw suuf mu am yaqiin ne kon yusuf deewul moo tax yenn saa yi day toggu càgg mu ne doom yi dem leen ngeen wëri ko moo am na yaqiin ne deewul moo tax yusuf bi mu feeñee mu dajeek papa ji mu ne ko waa papa tax nga dajeek malakul mawt di ko laaj ndax dee naa wala deewuma mu ne ko dama doon ragal nga nekk ci kaw suuf nga bàyyi sa diine bàyyi bis boo bàyyee sa diine nga nekk ci beneen diine ëllëg yow mal xiyaam yàlla tàqale ma ak yow dégg ngeen wax bi képp ku bàyyi sa diine nga jàpp leneen yow mal xiyaam yàlla tàqale la ak sa baay fekkoon ne yaa ak sa baay yéen a bokk diine nga gis nag kéemtaan gi yàlla def su fekkee da ngaa roy sa baay ci diine ji mu nekk te mooy diine lislaam sa papa ëpp la martaba ëpp la daraja parce que jamono mel ne jamono chaque jour noonu lay demee baay mooy ëpp doom martaba lu tax lu tax chaque jour baay mooy gën a baax doom moo gën a jege yonent bi xayru naas qarni génération bi gën mooy bi féete kaw gis nga ñun ñii ñooy gën suñuy doom gis ngeen jamono nu muy gën a doy waar nu ngi gën a doy waar tey la ngeen dégg ci rajo bi ñeenti diryanke yu doon tux yàmbaar te dañoo jaale ji woon a wala déglu loolu soo duggee ci kër gi l'observateur bi mu ngi mu ngi première page page numéro 3 xaw ma 4 ah dañoo jaale ji dëj dem dugg ci benn ruq ci dëj bi taal seeni joint ay jigéen waaw kenn ki am na juróom-ñetti fukki at ak ñett liir nga ko kenn ki am na juróom fukki at
juróom fukki at ak kenn juróom fukki at juróom fukki at ak ñett ak ñett ak juróom ñaar ak juróom-ñaar ak juróom kenn ki am na ñetti doom kenn ki am benn doom waxuma sax waxuma sax jigéen buy tux cigarette mais jigéen buy tux yàmba waxuma sax jigéen buy tux yàmba mais nga dem jaala ji di tux yàmba est-ce que est-ce que ñooñu xalaat nañ de ñooñu est-ce que dañoo jaale ji loolu moo leen di wan ne li ñu doon wax léegi mooy li am maanaam jamono bi lu ñu gën a dem ñuy gën a sànku façon xeetu mbon di gën a ñëw nit ñi di gën a bon xoolal léegi xale yu góor yi kenn takkatul tubéy ci ndigg li ku nekk yaa ngi gis tubéyam siliva mu ngi ci biti wala ah gisatoo benn xale bu góor bu takk tubéy ci ndigg li koo gis mu ngi dox di yëkkati ñaari mètres yi nekk mu taxaw ne kërëj delluwaat kañ lay yegg fu mu jëm ne leen yàlla jubal mu ne wa indahu wallahi innaka sëtam yi toogoon ci itam qaala xafidatuhu ay sëtam ñi nga xam ne ñoo ko waroon ñu ne ko wallahi innaka la fi xata'in wa zihaabin an tariqi sawaabi alqadim ay imaam yow day yaa ngi ci njuumte lu rëy a rëy a rëy te sax gis nga yoon bu jub bi yow da nga kaa sori allahu akbar ay minit rek ki ñu joxoon yére bi daal di yegsi borom bi diñ ko nettali ci saar bi ci aaya 96 mu ne fa lamma an jaa al bashiru kii bégale waa jooju yor mbub mi tey mooy ka yoroon mbub mi démb ca ba mu ne till bi lekk na bañ ne till bi lekk na Yusuf lan lañ indi woon lan lañ indi woon yére tey bi Yusuf feeñee lan lañ indi yére ñaari yére ki indi woon yére bi démb ne baay am yére baa ngi nii till bee lekk sa doom bi mbir mi amee dane gaa yi déedéet man mi indi woon naqar bi ci sama baay maay dem génne ci naqar bi indi leen ma yóbbu mbubb mi pour bégal ko même personne bi moo jël mbubb mi ñaar yëpp yére la yére moo indi naqar yére moo indi mbégte tey falamma an jaa al basir falamma jaa al bashir mubashir bil xayri saar bi waa ji indee mbégte gu neex kaanal basir axaahu yahuza noonu la tudd yahuza frère am la bu tudd yahuza ñoom ñaar ñoo bokk baay yusuf ñi mu bokkal ndey ak baay ñaata lañ kenn mi ngi tudd binyamin yaayu yaayu yaayu yusuf yaayu yusuf moo doon ñaareelu yaqub rahil la tuddoon aawa yu aawa yaqub mu ngi tuddoon layya moo ñaareel bi ñoo bokkoon ndey ak baay seen papa buur la woon mu ngi tudd laabaan ñaari doomam jigéen la may jarbaatam bu tudd yaqub mu am ak kële ñaata doom aawa bi fukk mu am ak ñaareel bi ñaata doom ñaar yaqub ñaata jabar la woon ah yaqub ñaata jabar la woon waaw wax na wax na il faut mu wut ay portable dëgg du ñaar de ñeenti soxna la woon wax naa ko dafa jàll moo tax ma ci jaar damay répété waat lii dafa jàlloon di histoire bi bi bu may wax kan mooy Yusuf xoon nañ ko xoon nañ ko ñeenti soxna la amoon yaqub ñeenti soxna ñaari ñoo bokk ndey ak baay muy yusuf yaayu yusuf ak awa bi yaayu yusuf moo doon ñaareel bi yaayu yusuf mu ngi gaañu góor gaa ngi jógee dëkk bu tudd faddaan araan jëm kanaan lan la fay uti baayam isaaqa moo faatu ñu ñëw informé ko fi wax ko ko léegi moom moo war a jëlaat ndomba tànk bi fële jëlaat yonent gi mu déparé faddaan araan jëm kanaan ci diggante boobu ñu nekk ci àll bi di traversé di dem yaayu yusuf mat dal ko fekk moom buy am doom day métti parce que ci taaw bi dafa métti woon muy am ñaareel doom Binyamin mat dal ko ci àll bi léegi ñu ne ñu yónni ñu yónni kenn na dem na dem dëkk ba uti uti kuy rawle hmm, gis ngeen balaa ndaw si di yegsi mu fekk soxna si faatu na fa am doom gisul doom ji mu faatu foofu lañ ko suul ci yoon boobu egguñu dëkk ba bi ñu egg dëkk ba dañu fekk waa dëkk ba di feetu ndax yonent baa ngi ñëw yor seeni sabara yor di teeru ndeysaan ñu ñëw ne leen kii kat talu leen parce que jabaram dafa faatu ci yoon bi ñu arrêté noos bi kon dañ ci doon jaaraat di leen ko fàttali mais deneen jàpp mbir yi wala damay wut ay portable yu bëri teg fii ku trouvé rek ma jox ko benn ndeysaan kaana albashir axaahu yahuza allazi xamala qamis ak dam gis nga mooy ki nga xam ne moo yeen woon mbubu deret bi moo ñëwoon ci papa ji papa ji ne ko ana yusuf mu jox ko mbub mi ne ko tilliyee ko lekk papa ji xool mbub mi gis deret ji waaye erreur bañ def ci mbub ma mooy ah xotteekuwul papa ji dafa xool mbub mi mu ngi taq deret su fekkoon ne tilliyee ko lekk kon mbub mi nu mu war a mel day may bën bën papa ji daal ne waay waay waay waay waay waay till bi ko bëri yërmande xale yi ne lan la boobu bàyyiwuñu xel lu xew papa lan la ne ah till bi de daa lekk yàpp xale bi te lekkul yére bi rek ñu ne nii ñu xoolante ñu xam ne def nañ erreur loo moo tax gis ne chaque jour criminel kuy def tooxi doona doo ànd ak sa xel foog nga bàyyi dara parce que yàlla mooy nëbb sa xel moom yàlla moo lay gëlëm loo surtout nag lu jëm ci deret parce que doomu aadama dafa foor yàlla moo ko bind man ahyaha fa ka annama ahya naasa jamian bu dee jullit la moom man qatala muminan mutaamidan fa jazaahu jahannam mbokk yi nee na ki indi woon mbubbu naqar bi moo indi tey mbubbu mbégte bi moo yenu yére bi teg ko ci kanamu baayam alqaahu ala wajhihi mu dem sànni dafa ñëw fekk baay ji rek mu sànni yére bi ci kanam ndeysaan bi loolu amee rek far tadda basira bëdi daal di dellusiwaat weexaay bi daal di dañ góor gi commencé gis aada basiran lamma xadasa lahu min assurur ndax mbégte gu mu kontaan bi loolu amee nag léegi lan la leen wax qaala alam aqul lakum inni alamu min allahi maa la taalamuun waxoon naa leen bu sànq maa leen naan leen maa ngi xeeñtu xetu yusuf ngeen naan ma damaa dof waxoon naa leen ne xam naa ci yàlla lu ngeen xamul inni alamu min allahi maa la taalamuun léeg-léeg ay nit jël aaya yu mel nii bëgg cee naxaate surtout nag ñi ñaañ ay kilifa ñooy ñu naan ay sëriñ tooñu ma leen de yenn saa da ngay wax ak kenn ñu ne la kii xam na loo xamul moom xam nga yow danga bëri problème kii du nitu kese kese kese inni alamu min allahi waaw d'accord mën na xam lu kenn xamul mën na bañ a nekk nitu kese mën na am may am may yàlla waaye nag day fekk muy feeñal lu dagan sëriñ bu jël sàngara di ko naan naan balaa muy egg sama put ma sotti ko meew kooku bandi la su ko nit ñi bëggee wax lii du dëgg mu ne inni alamu min allahi ma la taalamun du dëgg kooku bandi la wala takk ñi juróom-ñeenti jabar ñi wax ñu ne ah gis nga yéen xamu leen xam nañ kay yàlla ñeent la wax xam nañ ba bëgg dee loolu mel noonu ku ko def bis boo fi bëggee wax nit ñi yow xam nga ci yàlla lu nit ñi xamul du dëgg su fekkee nag da ngaa wane ragal yàlla da nga baax ah ñu xam ne loolu xéewal la ndax tilka rusul faddal naa baaduhum ala baad même yonent yi dañoo wa minhum man kallama allah am nañu yàlla waxal wa rafa baaduhum darajat wa atayna isa bna mariamal bayinat kon yemuñ dañoo comme noonu nit ñi kazalik waaye nag na fekk loolu ñuy wax na fekk ragal yàlla ngay wane mbaax ngay wane jaamu yàlla ngay wane waaye bis boo ko wanee ci ay caaxaan takk lopp ñeenti jabar di tux yàmba di naan sàng doo julli doo woor ñu wax nga ne moo ko sañ moo ko ñeme bandi nga war a leer ci suñu kanam ndeysaan yaqub ne doom yi waxoon naa leen ne xam naa ci yàlla lu ngeen xamul léegi lan moo xew wa anna allaha sa yarudduhu alayya li taxqiqi ruya waxoon naa leen ne yusuf ba mu amee juróom-ñaari at géntoon na benn gént te gént googu yéen da ngeen ne dee na te gént googu Yuusuf manta dee loolu gént googu nekk dëgg ci àdduna foog yàlla delloo si ma ko ndax gént gi nekk dëgg gént gi lan la woon ban gént la Yuusuf géntoon ihda asara kawkaban fukki biddéew fukki biddéew ak benn ak ànd ak jant bi ànd ak lan la gis raaytuhum lii dama kaa gis mu may sujjootal gént googu nag foog yàlla dëggal ko ndax jàng ngeen ne ru'yatul anbiya haqqun yonent yi luñ gént dëgg la wa huna ahassa abnaahu bin nadam fii nag góor gi waxee lii rek sët yi doom yi commencé sentir réccu gis nga def lu bon bala ngay xam ne baaxul nga feeñ gis nga jigéen ñi ñu doon lañ doon tux yàmbaa ban jàpp leen waaye xam nga lu yéeme man du luñ du du luñ doon tëx ci dë ci dëj du aas bi ñu am liñ leen tëj moom a yéem xam ngeen lu ñu leen tëj 15 jours 15 jours toxkatu yàmbaa ñu tëj ko 15 jours 15 jours ah lañ leen tëj 15 jours la hawla wala quwwata illa billah Sénégal moo neex ah ah 15 jours kuy tux yàmba ñeenti jigéen yi tux yàmba yi den tëb 15 jours est-ce que 15 jours lañ la war a tëj yàmba yàmba bu ñu doon tux cigarette sax waruñu leen tëj 15 jours waxuma laak nag yàmba allahu akbar léegi loolu mooy lan mooy tux leen 15 jours mooy tox leen te ñooñu yàggu ñoo tox yàggu ñoo tox démb de ñooñu dañ cee dëkk dañoo dañoo dañ cee crise jigéen bu demee ba am fit di tox yàmbaa góor bu toxee yàmbaa day dof jigéen di ko tox ay at dara dal ko xam nga ñooñu yàgg nañ moo tax yàlla na yàlla jubal loolu moo tax gis nga képp ku am doom góor jigéen ah mag la wala ndaw la da nga war a nekk ci moom di ko surveiller guddeeg bëccëg gis nga lu ëpp ci nit ñi ci lay dugg lu bon ci ay xarit lañ koy jëlee da ngay génn fii rek fekk ñetti nit wala ñaar nga xaritoo ak ñoom ñu dugal la ci tooxit gis nga xale yooyu ñu génne woon Grand Yoff te fi nëbbatu woon ci néeg di génne seen awraag xarit yenn xale bi yenn ñaari xale yi xarit bi moom leen ci dugal ku mag kii leen ci dugal looloo tax bu su boo amee ay doom fexeel nga xam ñan lay àndal école fexeel nga xam ci lan la nekk léeg-léeg nga ñëw rek songu saakam saak bi mu yor nga sotti këpp saak bi ubbi fermeture yëpp léeg-léeg nga jékki-jékki rek dugg seen biir néeg yëkkati mat la yi da nga gis yu yéeme yenn saa yi léeg-léeg nga jékki-jékki bu amee portable nga jël ko dugg ci boîte message yi dugg nga gis di nga xam sa doom lan la mais boo toogee nii di dem jàkk rek di ñëwaat di si kar nga bàyyi ko ci kër ga mu toog da ngay xëy rek police gaara sa bunt kër wala nga am lu la métti ci moom nga naan man kii ah fekk yow la parce que da nga ko négliger soo déggee yàlla naan xuu ku mooy fegal leen musal leen musal leen seen njaboot ci safara mbokk yi bi baay ji waxee loolu ñu yëg ne ñoom am nañu naqar rëccu nañu ala kullu ma faaluhu ci lépp luñ defoon léegi lu ñu wax ñu ne yaa abana ay yow sunu baay istaghfir lana jéggalul nu zunubana sunuy bàkkaar inna kunna xaatiin ñun dey ay defkatu bàkkaar lañ jéggalul nu ndeysaan muxtiin fi martakabna maa yusuf ñun de juum nañ ci ay mbir yu nga xam ne dañ ko def suñu digganteeg yusuf waaye nag jéggalul nu loolu mooy lan mooy waxal yàlla mu baal nu xam ngeen ibrahima waxoon na baayam dama lay la astaghfiranna laka dinaa la jéggalul yàlla yonent yàlla muhammad waxoon na baayam dinaa la jéggalul waaye ñee ñaar dañ leen koo tere lu tax ma kaana linnabi an yastaghfiru lil mushrikin yellul ab yonent di jéggalul yéefér yellul seen papa ne leen sawfa astaghfiru lakum rabbi xëy na waaye xëy na ci moom lu nekk la dinaa leen jéggalul sama boroom waadahum bil istighfar mu dig leen ne dinaa leen jéggal waaye nag waxu ko rek daal di koy def ndax loo bëgg rek loo bëgg dafa am jamonoom am waxtoom xale yi nee nañ seen bàyyi jéggalul nu yàlla moom naa jóg rek jàpp non non lu nekk dafa am waxtu dafa am waxtoom nan la def dafa bàyyi ba njël njël ndeysaan axara zalika ila sahar bàyyi na ba njël lu tax mu bàyyi ba njël tax mu bàyyi ba njël njël mooy lan njël xam nga njël ok xam nga njël xam nga njël ñi xamuñu ko njël mooy fajar lu tax mu bàyyi ba fajar ay 4 heures du matin 5 heures 4 heures et demi mu jóg heure boobu lu tax yanzilu rabbana ila samaai dunia kullu layla ndax heure boobu yàlla day wàcc ba sëccëm asamaan ndeysaan xam ngeen yàlla bu wàccee lu muy wax ku may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ku may balu ma bal ko ndeysaan allahu akbar allahu akbar ay waay ku may woo ma wuyu ko ndeysaan suñ borom sànq damay liir benn téere ba ci àgg benn arab mu ne benn borom xam-xam ñépp dañuy dugg aljanna déedéet da ko ne yow ma xiyaam kan mooy àtte borom xam-xam bi ne ko yow ma xiyaam yàllaay àtte arab bi ne kon ñépp aljanna lañ jëm borom xam-xam yi nag lu tax nga wax loolu mu ne yàlla du dugg ci détails yu bëree bëri parce que daf ñuy yërëm du dugg ci lu bëri yërmandeem mooy tax du dugg ci lu bëri parce que bu ci duggee lakk nu ndeysaan xoolal yàlla rek ni mu tolloog màggaayam lan lay ut si asamaanu sëccee ngir jéggal jaam ñi ngir jéggal ñu ci jamono boobu yàlla di wax loolu am na ñoo xam ñu ngi fanaan yi ci soirée yi ñu ngi fanaan ci baar yi ñu ngi fanaan ci boîte de nuit yi ñu ngi fanaane fecc ñii ñi ngi ñii ñi ngi ñii ñi ngi ñii ñi ngi xandoor ñi ngi nelaw allahu akbar sunu borom naan kan moo may woo ma wuyu ko kan moo may ñaan ma may ko kan moo may jéggalu ma jéggal ko moo tax yaqub mu bàyyi ba waxtu woowu ah li yakuna aqraba ila al ijaba ngir mu nekk waxtu wu jege bu ñaanee yàlla may ko waxtu wu kenn du ci delloo ñaan boo ñaanee yàlla daf lay may wa qila axarahum ila yawmi al jumaa ñenn ñi sax dañu ne dafa bàyyi ba guddi aljuma guddi aljuma ba pare cënjël dégg ngeen ñu ne ku dee guddi ajuma ajjana nga jëm wala ñun nag bala ñuy mun a foo fii guddi ajuma jot lu tax lu tax sénégalais yi di foo guddi ajuma ku may tontu déet dafa am lu tax ñuy tëgg soirée yi vendredi ci guddi lu tax parce que samedi doo liggéey da ngay nelaw Hmm? ndeysaan gis ngeen borom xam-xam yi nee nañ dafa bàyyi ba njël ñeneen ñi ne dafa bàyyi ba aljuma encore aljuma ci njël mu jóg li yataharra saata al ijaba ngir mu mën a dajeeg nag waxtu woowu ñuy nangu ñaan gis nga ndeke ñun fii ñu bëri ci ñun ñu ngi ñaan ñu ngi julli ñu ngi mais sa ñaan bi est-ce que utal nga ko waxtu est-ce que dàkk nga waxtu yàlla di nangu ñaan te pourtant tey boo déposé woon benn këyit ñu ne la ñëwal heure sàngam nga jël si ko est-ce que heure boobu dina passé nga dem li wóor mooy da ngay jóg sax avant heure boobu pour nga mën a dem exact ca heure ba lu tax yàlla nañu heure sàngam heure sàngam ku ma ci ñaan dama koy may te ñun duñ ko ñaan loolu moo tax jullit yi fi mu nekk nii am problème waaye xool leen saxaaba yi yàlla moo ne ñoom kaanu qalilan kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun daawuñu nelaw guddi ndax lan li allazina yabituuna li rabbihim ya ayuha almuzammilu qum alleyla illa qalila nisfahu aw inqus aw zid alayhi wa rattali alqur'ana kon ndeke ñun la soo gisee ñun ñu mel nii suñu situation changé wul suñu melokaan changé wul suñuy jikko changé wul suñu am-am changé wul c'est parce que du ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala ci waxtu ñaan waxtu yàlla di nangu ñaan yonent bi nee na yàlla rus na ku ne nii jaam ku ne nii yàlla delloo loxoy kese kon mbokk jullit yi waxtu wi la yaquba xaar ngir mu mën a am waxtu wi yàlla di nangu ñaan innahu huwa alghafuru rahim ndax yàlla mooy jéggale yàlla mooy yërëme yàlla saatiru zunub mooy nëbb bàkkaar yi ndeysaan yàlla mooy nëbb bàkkaar yi yàlla subhanahu wa taala su toppee nit ñi ci seen bàkkaar kenn du des ci kaw suuf xataa yonent bi alayhi salaam loolu la wax yonent bi nag ëllëg yàlla bu leen di àttee ci yërmandeem la leen di àttee saaba yi ne ko xatta ant mu ne même man lu dul rek yàlla dugal ma ci yërmandeem te yàlla buur la boo xam ne soxorul de yonent bi séen na yaay ju yor doomam di ko nàmpal yonent bi ne buñ ne woon ndaw si na dugal doomam ji ci xalu safara yi ndax dina ko dugal ñu ne ko déedéet mu ne yàlla moo ko ëpp yërmande ci doomam ji kon yàlla bu mbugalee jaam rek jaam bi dafa ëppal bu yàlla dumaa jaam kon jaam bi dafa débordé fi mu waroon yem la ëppal moo tax yàlla mu ne wa man yataadda hududallah faqad zalama nafsa képp ku jalgati fi nga waroon yem nga débordé tooñ nga sa bopp faqad zalama nafsa ixwaan yi ijtimaul ahbab baada firqatin tawil soppe yaa ngi nii di daje tey ginnaaw tàqalikoo bu sori diggante Yuusuf ak baayam diggante Yuusuf ak frère mi ñaata at lañ toog gisewuñ ñaata at la Yuusuf biñ koy sànni ca teen ba jël ko di ko jaay Égypte ba mu dem nekk buuru Égypte ba mu màgg ba nekk premier ministre génn ci kaso ba nekk premier ministre ba muy gisawaat frère am yi ba ñu buub waa dëkk ba yépp yaay jeeg baay jeeg mbokk yépp ñëw loolu yépp ñaata àll la borom bi ne fa lamma daxala fa lamma daxalu ala yusuf ndeysaan keroog fet bu rëy la dañ ko préparé Yusuf génne armée bi ñu solalaat leen changer li ñuy teg ci kaw fas yi peentiraat pale yi peentiraat garabu tàndarma yi koko yi defaraat yoon yi ale bi fi góor gi war a jaar ak njaboot gi dañ ko defar tuwaale tuloo nit ñëpp pour yonent yàlla yaqub ak njabootam sunu borom subhanahu wa taala mu ne root na ci yaqub keroog ba mu waree ñëw ci yusuf moom ak doomam yëpp ak njabootam ñu war a déparé dëkk bu tudd Kanaan jëm Égypte nee na Yuusuf moo génn ak buur bi xaraja Yuusuf wal malik wal umara wa akabiri naas tey jii bu benn président doon jóge feneen di ñëw Sénégal ñan ñooy génn président dina génn ministre yi dinañ génn député yi dinañ génn sénateur yi dinañ génn ah képp ku am ndomba tànk ci dëkk bi président jox la ko di nga génn ñëpp lañ génne keroog pour lan pour ñu ñëw teere teeru njabootu yaqub ak ay mbokkam incha allah mbokk yi fii la ñuy yem ba àllarba ci ak jàmm incha allah ñu continuer dars bi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh